une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer jàng leen te bàyyi foo nga lawaay bul leen bas yaakaar yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iqra njëkk a wàcc ci moom kon xam-xam lañu war a jiital nga lawaay bul tas yaakaar suñu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iqra ñaka wàcc ci moom kon xam-xam lañu war jiital nga lawaay bul yaakaar am réew bu jàng ma baaxee seeni njiit réew gam ko population ba gam ko sama réew mën naa am ndam ngalawaay bul tas yaakaar الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون صدق الله العظيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والزاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش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 رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما شاء الله. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين صدق الله العظيم بالله من الس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بطغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا سعدا شديد صار عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع دوركما إن الله سميع بصير الذين يسألون يستطهرون منكم من نسائهم وقلن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا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 الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ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 تشهدون la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أن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 إن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم فاتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم قد جمعوا لكم فاحصوهم فزادهم إيمانا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والفرقان فمن صيد منكم الصار فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران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 فإني سميتها مريم وإني أعيذها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب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 صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن هج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى رحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ينظرون jërëjëf Mbàkke bal na صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أن بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية سرا وعلاني سرا وعلانية وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. jërëjëf صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننصح من آية أو ننظها نأت بغير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير wa aqimu salaata wa aatu zakaa wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduuhu inda Allah inna Allaha bimaa ta'maluuna bashiir وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم mbokk yi tedd yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci liggéey bu am solo bii di liggéeyub alquran di jataayub alquran di ci ndokkeel ñi fi teew ñëpp muy kilifa yi ak sunu kilifa yi bopp yi ñoom it di sunu mbokk sëriñ daara yi sunu mbokki donga daara yi ak wayjur yi ñoo ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp xam naa kàddu gi tomb bi ñu sàkku ñu waxtaan ci mi ngi jëm ci waxtaan ci jikko yu rafet bu ñuy jeexal nag ñu joxe misaal ci a Cheikh Mouhamadul Moustapha Fadil mi nga xam ne moom lañu tuddee daara ji lenn ci moom ñu wax ci tuuti waaye lu jiit loolu ñu ngi ndokkeel sëriñ alxaaji ci liggéey bii di ci ndokkeel waa daara gi ñëpp waa daara gi nag ñetti xaaj lañ jàngalekat yi ak équipe bi leen di jàppale jàngalukat yi ak jàngkat yi ñetti ñooñu ñooy composé daara damay faral di wax ne daara ji équipe la boo xam ne kenn mënut a bàyyi kenn mënut dem bàyyi morom ma ci ñoom ñëpp seen liggéey dafa am solo ndax ci alxuraan la aju muy sëriñ daara bi jàngale waaye bu jàngale woon tey ba waxtu wii ca amut kuy waajal loo xam ne moo koy dëgëral yëfi njóobeen yooyu kon am ngontam du neex kon kay togg ca daara ga la bokk kay fóot ca daara ga la bokk kay setal daara ga ca daara ga la bokk kay saytu yarub xale yi ca daara ja la bokk lépp lu aju ci loolu rek ñooy équipe bi nga xam ne ñoo nekk ca daara ja équipe boobu nag ñoo laxasaayu toog ci wetu taal bi toog ci wetu taal bi taal bi yàlla moo ko taal ne bu fayee yéen jullit ñëpp lay duma taal bi yàlla moo ko taal ne bu fayee yéen jullit ñëpp lay duma sëñ daara boobu nag ak équipe toog ci taatu taal bi ku nekk xam na taatu taal moom boo ci toogee yàlla cay fekk weex ca duum baag ñuul ca këriñ laag lakk ca ferñeent yaag tàngoor wurut jeex ak léeg taal bi dem bay fay nga sëgg di ko di ko wal saxaar sa di la dugg say bët di jooy xonq coy ku ne xam ne daal ci ab taal booy sàmm bañ mu fay moom la koy nekk moo tax nag ñoom ñu toog ci taat taal bi jamono gi nekk di sàmm ngir bañ taal bi fay wares naa góor góorlu bu baax a baax a baax ñi nekk ca bitti ñuy góor góorlu nag di taxan matt di indi sëñ jaax li mu doon def sànq loolu la maanaam képp kuñ laaj ngir nga def ci alxuraan li laa bëgg a dimbale kuñ laaj ngir nga def ci alxuraan li laa bëgg a dimbale kon góorgóorlu ba taatu taat maanaam ngay taxani matt di indi daa war jullit ñëpp la war ndax bu fayee ñëpp lañuy ñuy duma taalib bu fayee ñëpp lañuy ñuy duma ku nekk nag ak nam la waree way jur yi ñoo ca jiitu ñoom ñi seeni doom nekk ca daara ji ñoo jiitu ci war a taxaw ci la leen war seen diggante daara gi di ko def ca di ko def nañ ko war a defee <clears throat> bañ a bokk daara ji bañ a bokk daara ji ni ma koy faral di waxe ñu bari ci ñuy jàngulu dañoo bokkul dañoo bokk njàng mi dañ koo bokk damay faral joxe misaal nag ne li nga bokk say poqtaan la nga yanu moo la gën a ñor la nga yanu bu ne jay yi nar a daanu boo ne tëwit sa loxo di ko aw la nga bokkoon sa poqtaan mi def <coughs> day wadd ñun nag dañuy bokk ñun suñ daara yi daara waajur dañ koy bokk bokk gi ma war léeg-léeg dongo bi ñëw ne suñ alaaji day sa sa baay nee na bëggoon na laa fay loolu waaye dañ ko indil facture bu cher ca la ko joxe waaw facture ba la yanu woon loolu laa bokk ah moom def fan yi moom xale yi waaju xale yi dañuy wéridi rek ordonnance bari moo taxoon bëggoon naa fay waaye nga jéggal ko ba fan yi yow say doom a ngi wéridi waaye yow comme dañ laa bokk say say yoon nekkut say doom yu wéridi ñun say doom yi nekk ca foofa doom yi nekk ci kër gi it ah fan yii de moom daanaka moom dëkk bee xaw a doy waar lool rek moo tax waaye waaye fat fàttewu la fàttewu la moo ne kër dëkk bi ni doy doy waar moom kër gaa ngay añ ña ngay reer waaye dong bii ci daara ji ko bokk bokk mbiram moo tax xooluñ ba xam ab añam ak nekk loolu nag mbokk yi di jëmale daara kanam daara dañ koy boole ci yi yanu téye ko ba mu dëgër lool jiital ko ci lépp mooy li war lay tax nga def ko nag mooy pës seef ba la cay dugal pës seef ba lay dugal ci daara ji ab jullit bu yóbbu doomam daara dafa war a xam ne àq la jum yoreel doom ji àq la du choix déedéet àq la joo yoreel sa doom sa doom dafa am commencé ñëw Seydina Omar jàmbat ko doomam ne ko sama doom daf may ñàkk kersa daf may dog munu ma koo digal mu def munu ma ko tere mu bàyyi jàmbat yu bari ci doom ji Seydina Omar naa da wax xale bi xale bi ne yow amirul muminin ndax doom amul àq ci baayam mu ne ko ah, mu ne ko luy àqam ci baayam mu ne ko doom am na àq ci baayam na ko tànnal ndey mu ne ko man de sama baay tànnalu ma ndey jigéen ju doy waar rek ju dëng moom na takk ba ma juddoo ci mu ne ko ñaareel ba mooy bu juddoo na ko tudde turu rafet mu ne ko man de sama baay tuddewuma turu rafet alxun fasa muy gunóoru mbéringaan moom la ma tuddee mu ne ko ñetteel ba mooy na ko jàngal alxuraan mu ne ko alxuraan day li ko dalee suratul fatiha maanaam ci kaw ba ci suuf wax di yàlla xam ma ci dara suy naa ma daal ne gees baay bi na ko kon yow bala ngaa lijjanti do àq ju la sa doom ji ameel lijjantil àq ji ñu ko ameel ba noppi ndax àq ji ñu ko ameel moo lay mooy tax waqifuhum innahum yas masulun ñëw lay tax ñu taxaw loolu yomal xiyam loolu lay doon waaye du àq jim leeral moom kon àq jooju dañ ko war a xam dañ fa di wax ñu ëpp ci wayjur yi jotaayu daara mel nii mënuñu ñàkk def mu xaddim bu mel nii ñu ci wayjur yi donga yi ñu ëpp ci wayjur yi donga yi waxuma ñëpp de ñu ëpp ci ñoom xamuñu àq ji àq ji taxu leen a jóg ay xaaj lañ yoo xam ne ñu ci bari seen doom dañ leen di dénkaane ñu ëpp ci waajur yi dañuy dénkaane seen doom ñaari xale am na ñaari xeeti xale xale bi nga xam ne moom du toog ci kër gi bala ñoo añ dañ koo wëri léeg-léeg ñu tëdd muy muy muy muy muy muy fëgg bunt kër bi ñu ne xale bi daal moom danger ci la nekk 4x4 yi këfaateeg saret yeeg oto yeeg yooyu daal danger la ci moom mën naa am oto yi fiir ko ñu ne nañ ko dénk sañ Alaaji Sëy nañ ko dénk mu gardeel ñu ko mu sàmmal ñu ko kooku alxuraan tax koo jug de day protéger doomam bu defee nag suñ daara bi day am positif lool yaakaar ne kii day jàngulu mu nekk ca moom la ca war lépp nu ko ci def waaye bu ñu demee ba ca mujj li may bëgg a wax ci la nga xam ne jàngaluwu doon ka ca des moom mooy xale bi nga xam ne moom day toog ci kër gi gan goo am mu nekk leen ruube nekk seen wet lu ngeen wax mu dugg ca waaw ngay xàjjee ka kii kay mat naa dem daara kii kay moom bu nelaw jotee mu ne la doo fi doo fi nelawee di dóor ay potaka fëgg bunt yeeka nga ne kii daal wax dëgg yàlla moom naa ko jël yu dénk ko sa nga laaj sëy naa ko dénki ndax ndax ñu am jàmm foofu daal dénkaane ñoo ñëpp nag am na lu ñuy xaar ci kanam lañuy xaar ci kanam nag bokkut loo xam ne foo xam ne bu fa àggee foo xam ne bu fa àggee ak fu xale bi mën a toll sa nga xam ne kii jàngalu doon ak fu xale bi mën a toll même ca àgg sax léeg-léeg léeg-léeg léeg mu feeñ seen biir wax léeg-léeg xale tàmbalee jaay ak ak ak ak tàmbalee tappale ci njàng baay bi di wane ne damaa bëggum jàng di di wax waxi ful la fekk ca biir wax ja ngay xamee la ko tax a jóg mu naan xale bi danga jàng baa nga dee da nga yaakaar daa am fulla de dèjà jublu am dëgg-dëgg la koy teg nga koy xam mooy da nga jàng baa nga dee mënul mënul dul jàng bu ma nee leneen kon bu ma nee leneen lu dul jàng mu jël si ko du ko xaar sax mënul dul jàng kon da nga jàng lañ ci ma ma mooy lan mooy daa mënagul leneen moo tax ma bàyyee la ko bu ma nee wax yokkal ma jaay la bu koy jël sax loo tàggu waaw ndax am na ñoo xam ne foofu lañuy xaar am na ñoo xam ne as boo xam ne bu fa àggee dañuy jàpp ndaa war a jàngi métier la ñuy wax am na ñoo xam ne sax dañuy ñëw ba ci yow am na dañuy ñëw ba ci yow ñu la ah, xale bi de xam naa ne wax dëgg yàlla fii ni moom euh, dama bëggoon rek nga dimbali ma ma jël ko ndax lan ndax daa war a dugg école daa war a dugg école da daa war a dugg école maanaam kon duggam école jone dama la ko dénkoon école bee ko moom ak fu man a toll ak fu man a toll wallahi yii may wax nii léeg-léeg gis sëñ daara boo xam ne damay wax ne liñ koy def moo jam ko paaka ci xol ñoo yam xale bu tari juróom-ñaari isib ak nisib sëñ bi di ñàcc sëñ daara bi bu alxameseeg ajjuma jotee day yàkkamtee gisaay waate xale boobu bu waxtu njël jotee quatre heures du matin mu mu mu biin biin lu nar a tëddaat xelam del ci xale bi mu ne bërët ndax mbégte moom jàkkaarloo xale bi mbégte mi mu ci am day wax ne suñ daara boo ko fekkee ci xale yi ñu wër ko tàngoor week situation bu metti beeg taqaayu barab beeg nga di ko yërëm fekk na roox yéen li muy yëg moom ci bànneex ku dul ma mënoo ko xam xale bu tare bindam ca gagul léegi suñ daara bay yëg ci bànneex amul lu ko mën a remplacer amul xale bu tare juróomi isib gagul subhanallah sëñ bi da koy xoola ko xoolaat yow loolu nag yëg-yëg boobu nag waajur wil dénkoon mu amu ko xale bi de toll foofu sa xel mi nekk ci waxtu nekk yàkkamti sëñ bi lool di dajeeg moom ñaari ñaari wajure am kenn ki moom am na ñàkk kersa gu toll ni ki ñëw jël si ko jàkkaarloo yow face à face ne na damay jël xale bi am na am na nag koo xam ne sax dala da damaa xaw a rus sëñ alay say duma fa duma fa dem kañ la koy xaare virage yi virage yi ñoom seen korité ak tabaski ak yooyu ñooy virage yi ñuy capté xale yi xale bi day wiire rek ñu capté ko waaw di xaar yooyu la ñuy xaar bu ñu weeree ñu jël xale bi ca may wax ne li ci gën a metti mooy danañ wax xale bi ne ko boo correcté bu correcté boo bërsee doo del doo dellu dangay bàyyi dégg xale bi yëg ko annoncé ko moroomi xale bi yëpp bagage am yu sew yëpp mu maye ko ceew sëñ daar bi yu doo yëg ah <laughs> ndeysaan yëpp bagage yu sew yëpp mu maye ko doo am lu may ñu bër ba weddi rek nga toog ba ci yàgg nga ne waaw Matar moom daa ñëwagut a xale yi daal di xoolante daal di ree ndeysaan seen réew yu sew yooyu ñu la buñ la buñ la buñ kontaanee ci yow xam nga xale yi day am ak yoo xam ne buñ bokk dañ kontaan ci yow waaw <laughs> am yoo xam ne buy xew ci yow dañ ciy kontaan daal di ree daal ne la bàyyi na di ndeysaan loolu lañ la ko informé loolu yu doy la mbokk yi seen nga jamono xale sëñ daara bi ak lu mu dëgër dëgër diggante boobu dana ne teg ne yàcc ndeysaan asker sa soo xam ne moom amul kum ko mën a leer loolu baaxul xale yi toll ci jàng alxuraan war a mokkal bàyyi leen leen ñu jàng alxuraan ba mokkal Sëriñ Tuubaa nee na woon ndaw loo xam ne koo taxaw mokkal alxuraan sàggane ko ba mu ñàkk koo mokkal kaw suuf si ñu nekk lu ko jar néew fi kaw suuf si ñu nekk lu ko jar néew fi xam nga loolu mën a wuti ci xale bi waaye mokkal téere yàlla bi moo gën ci yow moo gën ci moom it moo gën ci askan wi yëpp kon nañu góor góorgóorlu di bàyyi lool xa suñ daara yi di amat taxaw leen bàyyi leen xale yi ñu àggale ci jeexal foofu nag ci buntu boobu ñiy amal njariñ sëñ daara yi ab sëñ daara wërta wërta wërta jaaxle ab sëñ daara wërta tumuranke ab sëñ daara koor wërta ñëw mooy xalaat koore wërta ñëw mooy xalaat tabaski wërta ñëw mooy xalaat loola war de xale yi tey bu doonoon korite korite korite bu jubsee xale yi tey xale bu ne na indi genn ganaar waxuma ñaar de genn ganaar dong jox ko si nga laaj sëy waaye waaye ndaw yi ganaar waay koreem day neex tey daaj du am problème du am problème mu korite du am problème mu xale bu ne bu indee genn ginaar si nga si day maye ay ginaar maye. koor gi bu noonu xale bu ne na juróomi kilo suukar duñ am problème mu suukar li des ci koor gi ma waaye dama wax ne léegi indeetuñ suukar waaye dañuy laaj suukar li gën a garaaw suñ daara loolu ñëpp xam nañ ko léegi maanaam jutatuñ leen suukar mais dañ leen di laaj suukar léegi loolu sëñ bi loolu suñ daara yëpp ngi dund loolu loolu jotee noonu. tabaski bu jotee ku man a jënd xar bu mag baax na ku ko munta jënd ñaar ak ñett mën nañoo daggee jënd xar bu mag gën jaa néew suñu lay see war naa mën a yeew fii juróomi xar juróom gën jaa néew wallahi war naa nekk buñ ko yëgee waaye duñ def noon de dañuy bàyyi ba ba ba tabaski gi ndeysaan mu jaar ah man de sëñ bi seen sëñ bi saan man de xaram mi ni mu tuutee wax dëgg yàlla ñeewante naa ko ci lu teebari tuuti ñëpp defee yow xar bu tuut lay ñëpp defee ni loolu dañ ci war a bàyyi xel war a bàyyi xel ci taxawaay yi ñu ci war a am bu xotteem noonu ay bassin la war a sol fu mu toll bassin yi gën rafet yi gën a rafet dañ koo war a fexe ba sëñ daara bi di ko am loolu war a am de ay ay douze mètres di di dajale ci kanamam ay douze mètres yi bassin yi dagee ci kanamam moo war a am boo tukkee sa xel war naa nekk téléphone bu rafet nga sëñ daara ba montar bu rafet nga ne sëñ daara ba dàll yu rafet nga ne sëñ daara ba ndax lan jox ko suñu baax hmm? loolu moo war a am boo tukkee ba ñëwee sëñ daara ba nga war a njëkk a seeti ba nga war a njëkk a seeti moom mi nga xam ne moo lay garantil sa aljanna wa xaytuma yubasmilu sabiyu bi maktabin yaktub lahu aliyu wa walidayhi wa liman yuallimu baraatan min naarihi faltaxnamu man nga am ko gën tedd koo xam ne yow mooy tax ñu toj sa kër yi sawara tabaxal la kër yi aljanna kooku moom nga war a njëkk seeti waaye ñu ëpp ci ñoom duñ ko def de dañuy dox seeni muraada ba mu jeex takk soxna si ñëw di lay naan sëñ bi di ñu fi bëggoon a ñëwee waaye daal dafa xat a xat a xat fekk ba mu ñëwee woo na borom taxi ba évaluer ak moom bitigu koñ ba mu amoon ca koñ ba calcul la ak moom machine wala ba dem na seeti ko maanaam booleem lu ko ñor ci yooyu seet na ko yow nag da da nga ko ñorul loolu bokk li may wax ne bassin yee jëlil naa bassin yooyu waaye am na ñoo xam ne sax dañoo jàpp ne suñ daara yi waru koo sol far li gën a garaaw mooy am na ñoo xam ne dañoo jàpp na suñ daara yi ah waaye sa waay suñ bo boos la léegi di xoola sa waay bassin yi mu sol waaye yi moo war a sol bassin fu toll suñ bi war a fexe ba bassin fo fo toll di ko ko jox loolu war am joxal suñ daara ba xale bi xam ne fonk nga suñ daara bi fonk nga li koy def loo waaw kay waaye ñi ci bari ci ñoom duñ def noonu xam nga nu ñu defa dañuy bàyyi ba soxna si ne ko nag nijaay yére bi moom ëpp naa soloti yii yëre bii kay moom yii yére bii kay wax dëgg yàlla nag moom moom wàcce ko jot na jox ko kii jàngal xale yi waaye ndaw kii jàngal xale yi yor soxnaam war xool lu rafet nga yow li nga mënut a xool nga bëgg sëñ soxna ko xool <laughs> yow sëñ sëñ daara bi daa yor daa yor soxna na soxna day wax ne yow sëñ daara bi bu dee buñ la yutee loolu ngay tàllal naan tubarkaale lii ci laa julli ji waaye delloo ko nga naan ci laa julli ji julli ji delloo kon nañu nañu bàyyi xel loolu taxawaay yi war ci daara yi nañ koy def yéen soxna yi nag ci lay jeexale yéen soxna yi seen taxawaay ci daara daa war jamono ju nekk bépp jataay bu ñu woote ci xeeti jataay yi yéen a fay yéen a fay ëpp góor ñi loolu yàlla dogal jataay yi jataay yu baax yi ñuy woote ci dëkk moom ak faneen yu ci bari moom jigéen ñaa fay ëpp góor ñi léeg-léegi boo laajee jigéen ñaay dàq joxe ak lu mën a xew kon nag yéen taxawu daara yéen la war yéen ndey daara yi kon yéen a yéen nekk ci koñ bi bu dee amoon na fi fonk leen ko groupe ndey daara boo xam da ngeen koy taxawoo daara ji bu dee amoon na fi fonk leen ko ku ci ya ku ci am doom ak ku ci amul ngeen yamale ko ñëpp di ci participer ndax lu baax la bu dee amu leen ko woon nag booy boo ngeen fexe ko booy boo ngeen fexe bu ngeen jugee jotaay bii am am. groupe bu nday daara bu dëgër boo xam ne dañuy fexe ba bu ñu defaat tari bii déwén ñu ne ñoo fi joxe nangami basan ñoo fi joxe nangami goros saabu ñoo fi joxe nangami bidéli eau de waaye ñoo fi joxe enveloppe bii loolu loolu lu lu yomb la lu yomb la ci daara yi lu fexe ba fi ngeen ko war a def ngeen def ko fa loolu rek moo ci am solo ci tomb bi nag mbokk yi ci jeexal ci ndax lu gàtt lay doon wàllu jikko jikko mooy nit jikko mooy nit bu say jikko rafetee jag nga baax nga bu say jikko ñaawee wala iyaadu billah jikko ñaari xeeti jikko rek moo am jikko yu rafet muy yu baax ak jikko yu ñaaw day faral di wax ne ci bu ñu doon tënk waxtaan mais sa ko tënk ñaar ñaari tomb yi mooy jikko yu baax yi da ngaa war a góorgóorlu ci jikko yu baax yépp fas yéene ci xar sa tànk tubéy di maasale ko di yëf yu baax yépp waaye nag nga fexe ba gàddu ci genn jikko joo xam ne moom wala ñaar wala ñett yoo xam ne danga koy gàddu moom da nga naan yii moom samay jikkoo dinaa góorgóorlu ci yëpp waaye ci misaal bu ñu waxtaan ci muñ xel dem ci yow ndax muñ mën a muñ goo mën a muñ bu ñu waxtaan ci tabe xel dem ci yow ndax tabe goo mën bu waxtaan ci woyof xel dem ci yow ngir lan ngir incarné goo ko incarné di góorgóorlu cee des nag loolu moo. wax lu amul yi yi wuloo de saa ji yoo man moom waaye moo ci naan moo jël ko dara jël ko ci ab ji bu ñu ci yow bu ñu waxtaan ci nay xel dem ci yow déedéet loolu na ko mën na mën na ko mën ba mu tàbbi ca waaye bu mu sax jikko yu baax war a sax ci jikko yooyu nag mën si jëtt bi yenn yenn ba jiitu bi bu am solo ci ab jullit mooy li wax muñ muñ muñ ci jikko yi gën a màgg la ko muñ ci jikko yi gën a rëy la ko adduna bi yàlla fii indi adduna bi di ay ay paraf paraf ay métti kese ay coono kese ku la dàq muñ ku la dàq muñ moo la man ci àddina amul ku amul ay jafe-jafe koo koo gis ba ñee ko rek maa ngi jafe-jafe yoo xam ne bu doon ko julli doon nga kon fexey muñ ñaari xaaju muñ yi am yi am wala ñett waaye ñaari bi dañ ko jël ci misaal muñ benn bi ñu gën a xam mooy muñ ay métti ak ay métit ay nattu ay tiis yu leen ci daw nga xam lu lu mën a doon ci xeet yi natt muñ yoo natt yooyee nga muñ ko wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf la yàlla ni ko wal juu' wa naqsin min al-amwali wal anfus wath-thamarat waaye nag wa bashiri s-sabirina alladhina idha asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika hum muhtadun yàlla leen daa leen natt ci xeet natt yëpp natt yëpp daa leen natt natt yu métti yëpp moo moo xam stress bu jeex tiitaange ju jeex ab xiif alal ju ay bakkan sa sa sa yaay sa doom sa soxna sa borom kër nga bëgg ko faatu gàncax bay ba ci yàgg rek mu seetal maanaam lépp yàqu yàlla nee na bu ma bu ma leen nattoo ci loolu nag ñi nga xam ne mun nañ ñoom booy boo communiqué leen békk na leen yàlla gërëm na leen wasbir saabiriina alladina ida asaabatum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun koo yàlla moom moom te ci moom laa dellu kon lu ma la ci diggante bi rek de sëñ Paul wax diggante ñaari kaaf nuun yi ñaari lu ñaaw xaju fi gane àdduna génn àdduna nee na gane génn nee na gane génn diggante bi nee na lu ñaa fa ñu de gane àdduna suñ tubaab moo déggoon lool moo moo maanaam dañoo ay sorangaay murid yoo xam ne ay waxin murid yoo xam ne terme yoo xam ne ci moom lañ ko jëlee radiyallahu anhu te dégg ko dégg rek la xoola gane xam nga da ngaa gane si moom te leer na ma doon gane da gane gane moom doon toog mu ne diggante man jege at nag génn at na leen ñaa ko ji kon loo fi daal rek nee nañ ko mun kon mun ak jullit daf ko war a takkoo wér a wér ñaareelu mun bi ci des ñu doon wax mooy mun ci xéewal mun ci xéewal xam nga yi ay fitna la ay métit waaye léeg-léeg nag la gën a mooy muñ ci xéewal yàlla defal la xéewal ak gu maa doon ak gu maa doon ci misaal yàlla sotti la alal bu bare bare bare nga ne dégg soppiku woo soppi woo ay àndandoo soppi woo ay jataay soppi woo ña nga seqaloon ak a jafe yóbbu de waaw chance sa lépp ne bariwaan ak koo xam ne dafa dafa dafa nuru ku dëdd àdduna fekk àdduna moo ko dëdd dëddul bu ko àdduna gane si woon da nga xam ne dëddul àdduna boo àdduna ñëwoon ci moom dana a ñuy ku ñuy da koo bëgg woon rek nekkee waa jaa ngi lay a jàngal nañu ci bind bu am solo sëriñ Fallou xam nga sëriñ Fallou dafa bokk ci ñi ñi ñi metti ak dund sëriñ Fallou yëpp na ko te xeet yi metti teg kii si daal nattu metti nattu mënut a weesu àgg ci am am am ay fan yoo xam ne njël du tàgg sa gël sëriñ Fallou àgg rek njën ba ngi tàkk këram waaye ba mu demee ba nga xam ne léegi ñëpp ñëw na mu ne xalifa naa dem rek da doon bàyyi seen busa ilimaan nañ féet nañ féet kaa ñëwaat ne ko addunaa ni ñii wan ñu gannaaw wan ñu gannaaw ba jamono yi ñu toll bu ko seeni ñëw dañ mën nañ féet dañ ko wan gannaaw daa ah, loolu yóbbul de yóbbul daa ne ko nañ mel ne bu gasu teen nekk ci weeru koor di gasu teen di gas di gas ba jant yi bëgg a so teen bi bënd lu ndox bi wal wal wal wal bu ndox suñu boor dinañ àggale boobu àggale boor yombul mbokk yi àggale boor foofu yombul te loolu nag ci jikko yi gën a am solo bokk na mbokk yi ci jikko yi nga xam ne yow jikko yu am solo la borom bi subhanahu wa taala tàgg ko ci wet bu nekk mooy li ñuy wax sellal ak ixlaas li ngay def li ngay wax lu mu doon nga sóoraale ci yàlla képp nga ne maanaam sóoroo ci la leen suuroo ci keneen li ngay def sellal kese nga ci def maanaam yàlla képp a tax ngay def loolu jokkul bokk ci koy tedd yi mbokk yi tawaadoom mooy toroxlu suufee sa bopp wàcce sa bopp wàcce sa bopp wàcce sa bopp bokkul bokk na ci koy gën a tedd dara gi doo a am sëñ Mourou Sène wax tey misaal bu doon dara ngay juddu dara ngay wàccuwaay yi mu amoon ci ay daraja bu doon bu ma doon dundee ñi mu doon dundal ñu bari du jot ci moom ñu bari du jot ci moom waaye nangoo wàcce boppam nangoo suufe boppam ba mën a jëriñ loolu moo ci ko ñu tedd waaye boo yéegee foo xam ne yaa ngi a jëriñ doo ko diis diig ku diis diig la wax lu diis diig kon bokk na jikko yi gën màgg bu yi gën a màgg mbokk boo jëlee ko sa mbokkum julit mu tooñ la jéggal ko ngir yàlla ak boo jëlee ko sa mbokkum julit jéggal ko ngir yàlla yàlla lay xamal ne la gis naa daan la am nga àq fayu am nga àq fayu walakum fil qasaasi fil hayaati qasaas kon am nga àq fayu. waaye wa an taafu fa huwa xayrun lakum boo jéggalee moo gën kon boo jéggoo sa bopp jullit nga jéggale ko da wax ko déggoon kon kaso yi du am ndax maanaam convocation yëpp ñun jullit ñi ñooy ñoo ko defal suñu biir ñun jullit ñi ñoo ñoo naan danaa tëj damm ca caabi koy wax danaa la duma sama dafa doon laal ñun jullit ñoo koy amal suñu biir ay waaye dañoo xamul mag li nekk ci jéggale di leen di jégal sëñ Modou Dieng ñi ñu wax rek am na mbokk mu ko tooñoon tooñ bu tooñ bu ko naqari mbokk ma sax mbokk la ci man mbokk ma jege la waaye ndax jégal am solo mooy bu ñuy wax ca loola bu ñuy wax ca loola bañ àgg ci la seen sëñ Modou Dieng xëy na seen kaw rek moom jégal la ñuy wax maanaam fii bu doon yi wala bu tëj ci kaso yi bu ñu waxee du dañ naan sëñ Modou tëj ci kaso bi li ngay faral di wax booy bu doon a jéggile booy waxtaan ci moom nga bëri paas yoo xam ne koo tëb da ngay bëri paas yoo tëb ndax def loo xam ne bu fay woon addutu sama waa ji moomu nekk ku ñuy wax Bassam ña ne da ko defal bis muy muy jàpp moom sëñ Fall ba ci yàgg sëñ Fall yëg ne sëñ Sam ñan ron ron ko yaa ngi toog sëñ Fall si jël waaye lii lan la mun ko baax damaa nii ngi def daw gi fu ñu toll ñu ñu fitnaan bu dee bëccëg dañ ñoo war a fay suñu fan bu ma wax loo dama ndox ci sport ndox ci sport lay teg yëpp taaru daal la ñuur ñuur daal di baax man géej laa moo baaxee lépp yaa géej laa a baaxee lépp yaa daanaka ndax ku ñuy sàmmloo te saa bu dof bàyyi ab gàtt yàlla ba du mu indi indi loxo gerte ndox ante man a ab sàmm laa ñëpp lay sàmm loolu moo war nekk mbokk yi kon nañuy nañuy jéggalante léegi nag bokk na jikko yu am solo mooy suturaalante sëñ Fall ba ko teg dañoon du du nas yaakaar daw ko laaj ku laaj ku jox la nga jël fàllu xam yi la sutura ba sëñ Moussa Ilimaan nee na sëñ Fallou daan xam ci ko jox nee xam ci daan xam ci nit ay sikk ba xamee ci noo xam ne borom sikk sa xamee ko noonu cek du ko mas a feeñal ci dara sama góor ji bu ma ci donga yi nee na daara ji bu nekk ci daara yi nee na sëñ Fallou bu ma dox ba gis kenn kuy def loo xam ne du noona nee na daal dellu ko naa fexe ba doo ko gis yow nee na bu ko defee saa bu mu tegee ñu dong na dem lee dem lee am na ko ci def dara ci yéen lu mel ne nangam nangam waaye bu ko ci def na ko bàyyi du wax ne mukk rek am na ko def ci yéen sax ñu naan daan dem lee dem lee am na ci yéen kuy def nangam ak amee na ko bàyyi. rustan ci jeexal na nga ndax waxtu yi mbokk yi Serigne Moussa Fallilou mi nga xam ne moom la ñu tuddee daara ji xëy na li ma waxoon rek bu ñu doon wax si moom mën naa yaat lool. waaye bokk na ci bokk na ci lenn lu mat jël ci moom mooy xol bu laab xol bu set yéene li mu li mu li mu am lu mu rëy rëy yéene ko ñu ngi ko bokkal lan mooy màndarga bi am na ay am nay jamono fii ci nit ñi ñenn njabaru sañ Fallou gi seeti ko fa ba wax leen baax boo xam ne baax wax ju la bu analyse xam ne wax ju rëy la lan la waxoon dana woon di ku nekk ci yéen yéen mu toog di sëñ Fall te yow bala a ñëw rek ko nag loolu xol bi yéen mooy ci doon def kër gi ñëpp bokk boo dem kër sëñ Fall yi boo dem kër sëñ Fall yi yëpp mu defar ko ba mu mel nam war a mel mu defar ko boo mu mel na mu war a mel nga xam ne ñëpp a ko bokk loolu daal lay màndargaal mooy ñi mu bokkal Sëriñ Fallu lu cër biñ am ci moom yéene leen ko léegi-léegi mooy bokk na ci ay jikkoom yu mat a roy lool mooy yërëm askan wi maanaam problème yi askan wi jànkonteel nga di ko yëpp parce que li ma la wax fa dara jaam àgg noonu la doon dundee mën naa bay yëg jafe-jafe ñenn xam nga boo xam ne boo boo wéradee bu neexee dem France wala nga dem Amérique faj ji léegi kooku mën ngaa bañ a yëg ne am na ci koñ bi ñu soxla dara waaye moom yëg bi mu yëg ne am na ci gox bu ne mu yëg ne ñu wéer ñu ñëw doole ñoo xam ne jotuwul Ndakaaru jotuwul ci hôpital bu mag ba jotuwul Njaareem jotuwul fenn seen koñ bii ñu nekk war nañ fee am ab dispensaire mu tax ko ci ay barab yu bari bu xaaree bii ñu gën a jege jënd ci jënd ci mandarga Ndindee ngi nii Touba Bogo ngi nii Sam Yabal ak fu ne mu tabax faral poste de santé. ngir nit ñi pourcentage boo xam ne mën nga caa bañ a faj sa jabar a faj loolu mooy leen mooy yëg li nit ñi dund ci ay problème nga dem ànd ak ñoom noonu nag toog naa bis mu ne sama ciment sama ciment du tooy ñett sama ciment du tooy ci lu dul ñett yii ak fajukaay ak jàngukaay ak jàngukaay yàlla mu jàkk lu dul ñett yi dootul sama ciment tooy wallahi te loolu réel sëriñ ci lu dul jeex lu dul jeex lan moo ko waral mooy yëg nit ñi nit ñi ngay dundal nga ngay yëg ngay nangoo yëg siiri siiri jafe-jafe ba noppi nag yëg nga ci am nga responsabilité ci faj ko mënoon na ne man du ma du ma maire du ma chef de village ah du ma préfet wax di yàlla lii duñu ma ko waaye loolu ab bind la bind la boo xam ne mbokk yi bu doonoon way am ñëpp ku nekk gox ya nga féete def nga fa noonu askan wi tubaab yi tubaab yi yu bari mën naa ñàkk te loolu liggéey na ci liggéey yu rëy kooku bu ñu ko fii ba suba du jeex bokkoon na ci liñ ci mën a tënk ci jeexal gi mooy maanaam li ñuy wax xam nga topp ndigal laa ko mën a tuddee ci ni mu gëmoon Serigne Fallou rajo yaram dafa gëmoon Serigne Fallou dafa gëmoon Serigne Fallou gëm boo xam ne du gëmu bay ñu maa ko ñoom bu subaa fekk nañu fii xaayira waxtu mara ma ne ko sëñ bi dafa bëggoon tukki bëggoon a dem mu ne ko daa a mu ne Espagne a dem su ma doon su ma doon ah Italie baaxul mu ne ko Espagne a dem ah tey nga seet Italie mu ne ko eh, eh, Mbacke eh, Espagne laa bëgg a dem nga ñaanal waaye sëñ bi li ba kàddoom bu barkeel rek maanaam ba mu nekk Italie xamul lu mu yóbbu daal di jënd di jënd visa Espagne bu defee ba am ko benn waay ne ko ki doon ku doon lijjanti daal di ma daan wax daal ruus naa koo jox passeport bi noonu booy boobu ma jéem ko dugal tànte ambassade bi tey de tànn loxo mu dugal daal di am lii la demee waaye keroog ba mu ko ñaanaloo dana ko dugal foofu suuf jox ma comme mbéy mi noonu ñu toogoon rek foofu mu daan daan am Moussa moom Moussa daan di daan tibb suuf daan di bàq doon suñ mën a loolu dong loolu dong laa yoroon loolu dong laa yoroon ñu ne waaye defal ma ma sa bopp kon loolu lan lay màndargaal gëm gën a yëngu ci wax wax noonu kese nekk na bis boo xam ne nee na dama xëy si sëñ nee na fekk Baye Mouride Ndiaye bi nga toog ci watam nee na bi mu euh, ñëw sëñ Fallou sëñ fayee nee na mu daal di Baye Mouride Ndiaye waaw sa waa moom lu xew Baye Mouride Ndiaye ne waaw suñ suñ bi de nee na bëtam daa xonq te weexal te ko weexal si ba dund xonq mukk mu ne ko lu ma sa waay wax noonu Baye Mouride Ndiaye bi da wax ko li wax. sëñ Maodo. mu ne ko suñu fan waaw su la bët daa xonq su la koo weexal si bët du xonq. nee ko si bët dana weex du xonq mu. dana waaye da nga ndékki de da nga ndékki de lii maa doon suñu wër nekk de moom. léegi daal damay jëng ci jëng ab super boo xam ne fere ginaar moo ci nekk. sëñ Maodo nee na ba ma jëfandikoo ca fere yoo noppi daal daal ne nii daal nga xam ne man damaa damaa yàgg a xëy foog naa ne sol sol sol sol sol ba xam rafet danaay baax a rafet waaye nee na damaa jël la def da si cere ja dama koo tibb def ko sama poche ba léegi léegi man xoolal xoolal loolu. ba léegi mooy nee fekk yéegul woon fa ab oto nee na mu demee sëñ sëñ Moussa ñëw di fa mu mu ñëw mu ne ko jëlagul nga nga nga nga fas wi sa bàyyi Moussa day am fas nee fasaan suñ ko jël caabi yi jox jox jox ko si Moussa. suñ mu teg jataay bi keroog daal waaye gone tey yi di ko nanguwul seen maraakiis <laughs> gone tey yi di ko nanguwul seen maraakiis ñëpp dégg la boobu nag am bopp bopp daam loo xam ne mbokk yi du ay jaaxaan du ay jaaxaan da ngay gis xam ne dana la yéem fekk ab ab liggéeyam la ab liggéeyam la jumaa jumaa yi képp participation day jël at yam di joxe di at yam di joxe ba suñ fal na ko li ñu def man naa am sooroor tànn naa ci sooroor yi ban nga ci féetewoo lu ko jël naa ci bu ma tànn bay ba noppi bagaas ya fas yaag machine yaag yëpp lañ boole ak ak ak ak mbay ma jébbal suñ suñ suñ bàq. danaa koo xam ne li am da ngay xam ne danaa suñ programme da nga ko kañee waaye moom it da ko kañee yàlla ko yàlla fayal baax a baax ñëw jéglu waxtu yi tax na ba mënuñ cee yaatal lool li ñu jub ñu ngi ko sant yàlla lu ci dégg ñu ngi ko jéglu te xam ne mu jub rek moo taxoon ñu jub wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah. une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV ñëppay dañ agréer